moo ngi ci ligne bi moom mi di Ndeye Marie Thiam Diédhiou euh, jiite plateforme des femmes pour la paix en Casamance ñu ngi lay nuyu madame euh, Thiam. Euh, fëy naa lay Elisabeth. Ah, waaw uh-huh. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, li nga xam ne mooy euh, tontu invitation bi ah, gannaaw nag bu ñu la nuyoo wax ci li nga xam ne moo xew jamono ji ci semaine yi ñu génn gis nañ ne ndell yi déggaat nañ ko foofa ca Casamance mu doon région bi nga xam ne dafa particulier ndax crise biñ fa yàgg nemmeeku tey ji lii di ndell yi ñu déggaat ko ban conséquence la war a mën a am ci ñi nga xam ne ñoo ngi delloo jamono jamono ji askan wi ku nekk sa diwaan. waaw euh, Elisabeth malheureusement yi dellu si nañu ci biir euh, région bi. Mhm. dellu si nañu ci période boo xam ne fekk population gox googu dañoo décider dañuy dellu seen seenu seen i gox. Mhm. Euh, muy population boo xam ne ay liggéeykat lañu. soo demee boor yooyu danga fay fekk ay àllu doo darkase mhm. donc euh, ñuy euh, yoo xam ne liggéeykat lañu donc suñu delloo dañuy commencé waa delluwaat ci seen delluwaat ci seen liggéey te xam nañu ne toute économie région de Ziguinchor euh, euh, doomu darkaso bi ak mango bi noonu bokk nañu ci loo xam ne ñoo téye économie région bi donc lii su amee ndax sax ñuy jaaxal lool mu am ay conséquences yoo xam ne yu grave lay doon. Mhm. donc conséquence au plan économique am na. Mhm. te am na ñoo xam ne ay xale yoo xam ne tëb nañu ci mine bi donc day yokk nombre de victimes de mine yi loolu beneen problème la. Mhm. problème la aussi au niveau du processus de paix ndax lii mënuñu ko jénnee ci processus de paix bi. ci la bokk. donc euh, euh, yaakaar naa ne processus de paix bi aussi dina ko yëg. dina ko yëg donc conséquence yi dañu nekk euh, fune nit ñi dootuñu mun a déplacer wu di dem di ñëw parce que kenn xamul fu min nekk wala nekkul. Mhm. Euh, donc ça ay problèmes yu bari lay doon daal. Mhm. conséquences yi dañoo bari. Mhm. à tous les niveaux dina am ay conséquences te ñu ngi nii école dafa war a ubbeeku donc xale yi war a delluwaat école. loolu yëpp ay conséquences yoo xam ni euh, jaaxal nañu lool ñun. jigéenu euh, Casamance. Mhm. Euh, wax nga ko sànq ci suñu waxtaanu 7h30 mu mel ni jamono ji dafa am depuis quelque temps euh, da ngeen di dégg ay tiir ci yenn diwaan lan lañ mën a jàpp. waaw mais tiir yi ñu koy dëgg du côté de Adéane donc ci àllum bi bi. bi sin bi la tiir yooyu am. Mhm. donc mu doon ay affrontement armé yoo xam ne daf ñoo jaaxal. Mhm. ndax euh, liñ ciy ragal mooy affrontement bi su commencé foofu. Mhm. dana dem par ci par là mu ba nga xam ne ne dana am ay euh, <laughs> dina gis ay affrontement un peu partout. parce que soo seetee ci côté nord Sindian bi. ñu ngi gis ay patrouille yi yi protéger yi génn kii dans la dans le village. Mhm. donc muy am ay patrouille armée ñu gis aussi que am na cantonnement militaire bu bees bu ñu teg du côté de Boutoupa Camaracounda. Mhm. bi ñu fa ubbi et puis problème mu ndel bi dellu si ñenn ñoo ko teg donc ça pose un problème. Mhm. ça pose un problème donc loolu yëpp am na fii. am mm, na fi euh, justement euh, nga wax ko sànq muy processus de paix en Casamance tey jii rebondissement yi ñu nemmeeku ndax du am lu mu yàq ci waxtaan yu yaatu yi nga xam ne yéen a ngi ko sumb. mais gis nga ñun at yi yëpp passé bi ñu amee accalmie bi. Mm-hmm. ñu ngi oo nit ñi di yee nit ñi di leen wax ne pour accalmie bii. Mm-hmm. ñun daf ñoo jaaxal nañ cee profiter négocier. Mm-hmm. wax nañ ko waxaat ko mais nit ñi dañu mel ni euh, dëkkuñu. Mhm. mais voilà li ñu doon ragal mu ngi ni dellu si na. mooy mhm. lii lii ñu doon ragal. Mhm. donc euh, pour processus de paix bi à mon avis. Euh, dina ko yëg. dina ko yëg parce que ni mënuñu ko génnee ci ci conflit bi. justement fan lañ ci toll processus boobu. yéen ñi nga xam ne seen loxo ci biir. mais man xaw moom ndax mun naa wax ndax processus am na am na amul. xam naa rek ne am na accalmie te accalmie bi euh, ñëpp ci liggéey. Mhm. dëgg la état du Sénégal def na ci lu mu ci war a def. Mhm. combattant MFDC yi tamit def nañ ci li ñu war a def mais ñun aussi organisation de la société civile. Mhm. ñu loxo jënd ci. donc ñun ñëpp bokk liggéey bi ba ñu tollu tey ci accalmie bi. waaye accalmie du jàmm est-ce que. état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques ñu ngi doon waxtaan ñu ngi doon négocier loolu man dese na mu wóor. Mhm. Mhm. de toute façon li ñu gis tey. Mhm. mooy euh, euh, ndel yi dellu si nañ affrontement yi ñu ngi ay tir d'arme lourde ñu ngi koy yëg. ñu mhm. côté de ADEA. Mhm. donc loolu yëpp dafa di xam ne daf ñoo daf ñoo jaaxal. dafa tey xel nga jiite démb benn ndaje bi nga xam ne dangeen koy yaatal société civile bu nekk Casamance ngeen dajaloo waxtaan ay waxtu lu ñu mën a jàpp ci seen waxtaan googu. démb dañoo oote. ne bon ñun jigéen ñi ñu ngiy wax ñu ngi def ñeneen aussi ñu ngi def. Mhm. te ñoo boole suñu doole yi. ci la ñu euh, organisation société civile yu bari. Mhm. ne leen kaay leen ñu toog ñu waxtaan. ñu seet lan la ñu mën a bokk ñu ñëpp ñu def ñu dóorandoor. Mhm. ñuy waxandoor ñuy defandoor. Mhm. pour que aussi ñu peser sur la balance ndax tel temps tant que ñu ngi dem ku ci nekk sa côté peut-être que ñii duñ ñu dëgg bu baax. ñaari partie en conflit yi duñ ñu dëgg bu baax léegi suñu boolee suñu doole yi xëy na xëy na. Euh, euh, dinañu xam ni ñu ni leen nekk nekk di wax parce que quand même il faut que ñu jël en contre commandation organisation de la société civile mm-hmm. ndax dañuy wax ba sonn te on dirait que kenn du dugg tey suñu boolee suñu doole mm-hmm. am benn plan d'action boo xam ne ñun ñoo ko bokk di ko défendre ensemble mm-hmm. dañu yaakaar ne euh, Euh, dina am solo. dina am solo mhm. ndax mën nañoo xaar ay action yi nga xam ne euh, gis nañ leen ci tey it yàgg ngeen ci dox ndax daan nañu gis yéen ñi jigéen ñi nekk ci plateforme bi ak rawatina ñi nekk ci bois sacré ay marche ngeen ñu doon amal ay marche nocturne ay yeneen i activités yi nga xam ne da ngeen dafay intense euh, di ci woo jàmm di ci alerte di ci sensibiliser ndax mën nañu xaarandi lool si yéen. mais suñu paree suñu plan d'action danañu communiquer ci loolu. danañu communiquer ci li ñu war a def. loolu su waree bokk ci plan d'action bi dinañ ko def. Euh, tey jii wax nga ko euh, tout à euh, yi ñu ngi leen di jéem a yóbbu ku ci nekk sa diwaan arme bi encadré li ni mel tey encore ñoo ngi dégg li nga xam ne moom mooy li xew yéen ñi société civile ban appel ngeen di lancé ñi nga xam ne ñooy def li ni mel. yi dañoo sonn ci ci dawantu bi. Mhm. di dem di réfugié wu par-ci di dëkk par-ci di dem ñu abandonné seen i kër mhm. abandonné seeni i i tool mhm. ñu nekk di dawantu partout parce que xam nga gis nga aussi retour yi population yi dina indi un autre problème c'est le problème du foncier donc ñoom ñëpp dañoo bëgg a dellu jëlaat seen i suuf commencé waat liggéey mhm. te militaires yi nag ñu ngi ci seen devoir seen devoir mooy encadrer population yi protéger population yi léegi loolu yëpp su indee problème boo xam ne ne ba ñu ngi teg ay mines population yi aussi bëgg a dellu ba tax ñuy ba ñuy tëb ci ay mines mhm. yeneen problème lay indi encore mhm. moo tax loo gis rek waxtaan baax ni ci suñ nit ñi suñu dëggoon bi ñu leen di wax ñaari parti yi bi ñu leen di wax na ngeen toog ngeen négocier na ngeen toog waxtaan mhm. ba tey kenn dëgguñu peut-être que du ñu yegg si woon ci situation bi ñu yegg nii tey. Mhm. Euh, armée mu ci devoir am certes mais des mineurs yi ndax euh, foog nga ne am na lu leen bàyyi ci li nga xam ne mooy liggéey volontaire bi ñuy def ndax tey jii ils sont intimidés partout euh, foog nga ne liggéey bi dina mësa maanaam déminage bi ñoom dina ñëw gën a am courage wàcc ci terrain bi gën ko yaatal. mais des mineurs yi yàgg nañu di am problème. Mhm. jàppoon nañ fi plus ay de bu ñu fi jàppoon euh, il des années quelques années 2013. defe naa mhm. amoon na fi ay de yu ñu jàppoon. douze mais taxul liggéey bi ñu bàyyi ko. Mhm. parce que déminage humanitaire la sax lu war la. Mhm. soo nee population nañu ñibbi. eh bien il faut que zone bi ñu war a dëkk ñu déminer ko au moins. nit ñi nekk en sécurité. donc de mineurs euh, yi ñu ngi leen di euh, encourager encore ñu continuer seen liggéey. ñu mm-hmm. continuer seen liggéey. pour mm-hmm. que population yi mën a ñibbi ndax population yi loolu lañu ñu bëgg li bëgg mooy ñibbi seen dëkk. Mm-hmm. kenn gënu neex nag fi nga dëkk. wax ci leneen muy Covid 19 mbas mi nga xam ne moo wër àdduna bi euh, Sénégal ñoom it jot nañu seen wàll Ziguinchor nan ngeen koy dundee. ah mbas mi àddina euh, yëpp la wër et euh, ñu ngi dégg journaliste ce matin sax ne il y a un nombre important de morts au niveau de de de de la région de Dakar. Mm-hmm. donc ñun aussi ñu ngi koy jéem a gérer nu ñu ko mënee fii au niveau de la région. Mm-hmm. Euh, ma ciy profiter pour féliciter le corps médical jigéen ñi ñu ngi dans des actions de sensibilisation. Mm-hmm. Euh, ñun plateforme des femmes suñu première action mooy justement accompagner le corps médical mm-hmm. dañ ci def euh, jënd ay matériel yu hôpital jox ko teg ko ci loxo gouverneur mm-hmm. pour les postes de santé ndax xam nañu ne euh, con contact communautaires yi ñu ngi bëgg a bari mm-hmm. donc les postes de santé ñoo gën a exposé les infirmiers ñoo gën a exposé parce que ñoom ñooy recevoir des premiers malades il faut que tam nit ñi def ci sa xel xam ne feebar bi jarul nëbb parce que soo soo ko nëbbee daf lay lor yow. Mhm. te da ngay lor ñoo xam ne ñoom ñoom nga dëkkal. Mhm. donc euh, soo jegee les prémices de cette maladie là première chose à faire mooy nga jege poste de santé. Mhm. nga dem faju ji. en tout cas ñun jigéen ñi bàyyi waa ñi bàyyiwuñu li ñuy def ñu ngi ci continuer liggéey ñu ngi sensibilisation bi. par rapport au Covid-19. et justement jëm ci sensibilisation bi gis nañ ne Ziguinchor euh, ni mu euh, maanaam situation géographique am tax na ba euh, maanaam nombre bi muy accueillir dina gën a bëri te saa su nekk dañuy dégg ne plateau médical bi dafa dafa am ay jafe-jafe maanaam matériel yi bëriwul. tey ji lan moo ci seen message bi ngeen di lancé jamono ji nga xam ne hôpitaux yi ñu ñaa ngi ciy gën di dem mais effectivement plateau médical u Ziguinchor day recevoir ay malades yoo xam ne sous région bi la ñuy jógee ñëw di ñëw di faju si mhm. donc euh, mu doo war a doon un plateau médical boo xam ni war na mën a mën a mën a jël malade yi mhm. mais souvent dañuy am ay problèmes boobu ñëpp dañ koy dëgg ni ñi corps médical bi di plaindre de ça mhm. donc euh, problème yaa ngi fii au niveau des postes de santé au niveau des hôpitaux mhm. problème yaa ngi fi donc euh, li ñuy las l'appel bi ñuy lancé mooy nit ñi nañu jege les postes de santé bu ñu amee ñu yëgee ne dañoo feebar loolu dañ ko war a def sax ne serait-ce que bëgg sa bopp bëgg sa dëkkoon loolu bëgg ki nga dëkkal mhm. euh, euh, jàppale ko bañ feebar bi lor moo tax sax nit ñi soo ko yëgee ki sa yaram nga war a daw dem uti Euh, poste de santé yi. Mhm. ñu bàyyi suñu xel bu baax ne feebar bi euh, euh, amul gàcc ndax ñëpp lay dal kenn tout le monde est exposé kenn mënul wax ni man feebar bi ma daal ñëpp tout le monde est exposé. Mm, donc lu ñu desee rek mooy ñu respecter les gestes barrières. Mhm. loolu rek ñoo ñu desee def. en quelques secondes rek ndax jàpp nga ni autorités yi géré nañu crise bi nu mu waree. bon man duma ci porter jugement. xam mhm. naa ne ku ci nekk yaa ngi def sa wàll. donc euh, corps médical baa ngi def wàllam état du Sénégal mu ngi ciy def li mu war a li mu li mu war a def. même aussi organisation de la société civile am nañu suñuy wàll ñu ngi koy jéem a doxal dama def feneen ku nekk soo ci defee sa devoir rek. dana yëpp dana sotti. jërëjëf Ndeye Marie Thiam Diédhiou nga jiite plateforme des femmes pour la paix en Casamance. jërëjëf Elisabeth pour sa invitation.